Adja Khoudia maa ngi dellu tey waaw tey moom dana baax àjjuma la waa damay bañ a sol lunette sax ndax xam nga boo solee lunette poussière bi yooyu mu jambaajoo jàmm jàkk mën a jàkk ñu xoolante bu soobee yàlla maa ngi ci buntu kër gi journaliste si na ngeen def waaw sañ senaa de gis nga tey lu weex laa sol mooy wane ne jàmm nañu taxawoo tey jàmm nañ taxawoon ngeen gaaw ndax président léegi mu ñëw. asalaamaaleykum baa ngay wax léegi mu ñëw de gaaw leen. salaamaaleykum maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal ci suñu di am mbégte. chaîne Télé Futurs Médias. ak contentement. jërëjëf jërëjëf maître jërëjëf. maître fan yële passé ñu ngi doon gis ni yéen ngi doon teertu Ablaye Wade. ci démb waaw démb waaw parce que démb waaw. waaw ñu gis ni ñëwul ñu buggoon a xam nga leeral ñu lan moo ko téye foofu ba tax ñëwul. Lamine ak cat Lamine ak cat du leneen lu dul Lamine ak cat topp ci Ablaye dañ koo téye dañ koo jàpp ne amuñu autorisation loolu yépp ay mbotaan la catañu topp loolu moo koy indi boot nit mun a la matt ci ginnaaw loolu koy indi mbotaan su ko defee làmmiñ ak cat Ablaay dana ñëw Ablaay du ñëw dañ koo téye làmmiñ ak cat moo téye Ablaay waaw kon yéen a ngi koy teertu nii est-ce que yaakaar renvoyé nañ ko ñëw bi mu waroon a ñëw macha allah ba tey ñu jàpp ni tey vendredi dina ñëw est-ce que c'est que ni dina ñëw maître. Ndiaye dañoo tàggu cat ak làmmiñ ba pare soog a woote waat ndax tamit booy wax te tàggoo dëkk bii looy wax te tàggoo cat ak làmmiñ doo dem yaa may dëgg ak lépp mbotaana ko yàq te nga xam ne nag tey dañoo tàgg cat ak làmmiñ def suñuy muslaay yokk bayre tuuti a cib cipal ci ay kooñ. nit ñi génn fàttaliku na président mooy ñëw tey tey moom dara du ko tere bañ a baax ndax tey dina baax te tey ñu bëri nag dinañ am gàcce parce que fan yi ñu ngi yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci deru président naan doomam du sénégalais loolu ñaaw na waaw loolu ñaaw na Bonsoir, maître Madiké. bonsoir. Moi, c'est Kwasi Gosso Gosso, journaliste euh, télé TFM. Wow, J'ai seulement des questions à vous poser. rapidement. On a euh, avant-hier euh, à l'aéroport wow. pour accueillir Pas finalement, Ablai n'a pas été à le procès C'est le bout. Le bout, c'est le chat. C'est le bout. et la langue. Chat en français, moi, bout. C'est pointu. C'est la langue pointue. les Sénégalais la majorité partie ont des langues pointues quand ils parlent quelque chose à force de la parler cette chose devient mort macha mara di taani mais heureusement qu'il n'est pas qu'il n'est pas de ce cas le président inchallah rabbi on demande la permission de Dieu et de son prophète et du khalife général kullu mouride on demande la bénédiction de tous ces gens toutes ces personnes qui peuvent nous aider par des prières l'arrivée de maître Ablaye Wade mais avant tout on demande aussi l'utilisation de Thiat et de Lamine et de Sultane et de Mbotane qui veut dire quand je te euh, je, je, je te porte dans mon dos tu me kii matt tu me tu, euh, tu me ŋeeñ waaw voilà. Maître m'a dit que, euh, on avait dit que oui il n'a pas pu arriver avant-hier il va arriver lundi mais c'était hier. et il n'a pas que c'est sûr. parce Inch'Allah, que Inch'Allah quoi si il sera là Inch'Allah on se prépare actuellement leur avion tant que boo ci kaw gis nga avion yaa ngi jaar li xale doon wax avion Sénégal waaye ba nu mu tudd ci Adja Khoudia li xale doon way avion Sénégal waaw Ndiaye looy laaj ma dem. bonsoir maître Madické. oui bonsoir. man li ma la bëgg a laaj mooy maître Ablaye Wade bu ñëwee fan lay dal. ab Ablaye Wade bu ñu xanaa kër ga lay dal Adja Khoudia di ko toggal ceeb yu neex yu niin cere bu saf sàpp di koy toppatoo bu soobee yàlla kër ga lay dal. kon maître Ablaye Wade xanaa amatul xaalis ku toll ni président de la république ñëw di xaj. xaj 50 millions la ñu loué avion bi macha allah Ablaye tamit loo gis am na nga la ju bu mu dese ñun daal pare nañu. ñu ngi pare taxaw temm nag te di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy war di wax ne président Ablaye Wade doomam bii di Karim du sénégalais loolu métti nañu. waaw. ma bëggoon a xam ndax moom est-ce que réellement li ñuy wax c'est vrai ou bien c'est pas vrai. ma ne Karim fii la juddoo Karim xam na bii bal la Karim xam na bintee wali ma dinaa la jege maa soo Karim aay na def na aay kon ñëpp Karim door dàqe na Karim xam na ko ñu bëri ñaari tale la juddoo ñu waalo di booy nandite ñu bañ ko def Sénégalais c'est pas normal. au fait parce que rumeur boobu yàgg nañ ko dégg mais pourquoi il ne parle du wax olof moom. dana wax olof nag bu soobee yàlla dana bett ñu papam ñëw na ñaanal leen ñu jàmm ñu ngi préparé ñu ngi dem nag président Ablaye Wade ngi ñëw namoon nañu ko te tey dinañ ko teeru tertu ko def li nga xam ne moom mooy sirène yi buñ musaan génn ndar téeméeri sirène ak ñaar jóge nañu ndar ñëw ñoom maître Fatima Fall délégation yu mag ñëw nañu tey tey dara du sedd lépp yëngu. kon daal mën bu dara sedd. na lépp yëngu bu dara sedd na lépp bi yëngu. Adja Akuja. na lépp yëngu bu dara sedd na lépp yëngu. Adja Akuja. eh bàyyi laay ngi ñëw bàyyi laay bàyyi laay Ablaye Wade ngi ñëw. bàyyi laay bu dara sedd na lépp yëngu bu dara sedd. waaye sànna bu dara sedd na lépp yëngu bu dara sedd. sëñ Saalum dalal la jàmm ci réewum Sénégal. waaye ñoo tey léegi fi mu